Aminata Touré eh, mi nga xam ne nag eh, dañ ko dàq ci post député am foofule te ñu ko amal di waa bureau bu assemblée nationale moom nag ak kii di Serigne Bassirou Gueye nekkoon fi procureur de la république war nañ amal ay conférence de presse ba suba eh, tey bi ñu njort nag ne kon dinañu àddu jëmale ci bu dee Aminata Touré ci mbir moomu ñu ko dàq te sax muy joxoñ baaraamu tuuma njiitu réew mi Macky Sall. bu dee it kii di Serigne Bassirou Gueye moom nag kii di Ousmane Sonko di njiital Pastef daka jiiñ ne dafa bokk ci loolu muy woowee complot bi nga xam ne kon dañ ko ko def ci mbirum Adji Sarr gendarmerie bu Kër Massar ñoom nag démb dañoo teg loxo ñoo xam ne daal dañ doon yëngatu ci mbirum faux médicament te doon ko sax jaay ak séddale foofule ci banlieue bu Ndakaaru ak li ko wër ñoom nag euh, jot nañ sax jàpp ñaari dépôt clandestin muy foo xam ne kon dañ fa doon denc yooyu le faux médicament am nag ñeenti nit yoo xam ne teg nañ leen euh, loxo ba déglu leen kon fi mu nekk nii euh, ñu ngi ci loxo yi yoon ñoom nag ñu ngi leen di toppee mbirum exercice illégal du métier de pharmacien maanaam daal di def liggéey boo xam ne ay pharmaciens ñoo ko war a def euh, ak it euh, denc ak a séddale ay produits pharmaceutiques muy ay garab te sax loo xam ne jaarul ca yoon. xibaaru Afrique dañ koy tàmbaleek Nigéria foofu nag lu toll ci vingt sept éleveurs euh, ñoom lañ ñoo fa faatu kon gannaaw bi nga xam ne ab bomb moo explosé ci daal centre dëkk ba ay police nag expertu police ñoo doon def ab enquête pour xam lan moo waral boobule explosion wante nag euh, ay yenn ki sàmmkat yi ñoom euh, dañu ne euh, daal boobu la explosion ñii di armée bi ñoom ñoo ko amal ci ay bombardement yoo xam ne kon ñoo ko amal ñu ne ñoom ñoo tax ba jee jooju am ay chef d'état et de gouvernement muy ay njiitu réew ak i jëriñ ñoom nag dajale nañ fii ci ndakaaru démb ci ab sommet bu ñuy tuddee Dakar 2 nourrir l'Afrique souveraineté alimentaire et résilience ubbi na démb fii ci Diamniadio lu toll nag ci seize chefs d'État ak gouvernement teew nañ fii ñoom nag dañoo bëgg daal lii di souveraineté alimentaire maanaam Afrique moom boppam ci wàllum euh, dund ci loolu lañuy liggéey loolu nag kon ci lañu bugg liggéey daal ba li nga xam ne moom mooy continent Afrique dootul jéggaani euh, lekk fi nga xam ne kon moom mooy bitim réew. xibaaru bitim réew euh, ñu tàmbale kook réewum France mi nga xam ne nag ñoom dañoo woolu seen ambassadeur bi nekk fële ca Burkina Faso te muy Luc Alland ngir nag waxtaan ak moom loolu nag mu ngi am si jamono joo xam ne sax ñii di waa euh, France kon dina ñu jëlee seeni militaire yéen nekk foofu la ci Burkina Faso gannaaw bi nga xam ne sax kon réewum Burkina Faso moom moo ko sàkku palestiniens ñu ne ñoom la ñu faat bésub euh, tey bii amit euh, quinze ca ñoom ñu gaañ leen fële ñuy woowee kon Jenin nekk ca Cisjordanie bi nga xam ne sax kon ñii di israélien dañ ka occupé buñ sukkandikoo nag ci ministre de la santé wala ministère de la santé bu Palestine moom moo joxe boobule ay xibaar ñi nga xam ne nag ñoom ñooy armée bu Israël ñoom daal dañoo xamle ne daa am ay opération yoo xam ne dañ koy def ci camp de réfugié bu nekk foofu la ca Jenin ñu ne nag euh, fekk kon daal euh, jëmi jamono dinañ ci joxe ay xibaar luñ ñoon tey ci ay xibaaram seen teewlu dinañ jox daje ëllëg jaa